sénégalais yi di jël gaal ngir dem bëkk ji di gën a bëri saa su ne ñu nemmeeku ni léegi dëkk bu ñuy woowee Nicaragua la ñuy jaar ngir dem États-Unis waaye ay jigéen ay góor ak i ndaw daañu daj ay jafe-jafe yu métti balaa ñoo yegg ci bile dëkk. am na ci ñoo xam ni Argentine lañ jóge bis lañ jël ba Mexique jóge Mexique dem Nicaragua am na ñoo xam ni nee nañu euh, des sénégalais yoo xam ni wasiñ nañ sax ci yoon bi am na ñoo xam ni seen tànk damm na ci yoon bi ñu des ci yoon bi dañoo faatu ñu mujj muur bàyyi leen. am na ci ñoo xam ni dañoo egsi traumatisé wu ba léegi dañuy gént yoonu Nicaragua bi. gannaaw seetlu gi collectif bu ngànk cadre yi nekk ci biir diaspora di sàkku ab politique publique gi jëmmal xëyu ndaw liñ leen proposé mooy ñu entreprendre état bi tamit. créer entreprise aussi yomb na waaye état bi jàppale nañ bañ am financement bañu am euh, banque bu leen mën a gunge bañ am institution lu leen mën a gunge. ñoom it ñu fas yéene cee dugal seen loxo gannaaw banque bu ñu fas yéene tëral ngir mën a dimbale ndaw ñi. moo tax ñun sénégalais de l' extérieur collectif CAD diaspora ñu bëgg a ubbi benn banque internationale des sénégalais de l' extérieur pour ñu mën a financer projet yooyu ñu créer emploi ku ne xam ne ni boo amee xëy doo xalaate jéggi gaal doo xalaate jéggi géej gi doo xalaate jéggi Nicaragua bay ñàkk sa bakkan. collectif diaspora bi war a organiser deuxième édition wu diaspora award yi cérémonie googee war doon porox ndoll ngir ñu waxtaan ak ndaw ñi ñu mën a xam mën nañoo des ci seen biir réew te teg